mbir mi moom li ko waral rek mooy biñ ñu namee fii dafa am sas wuñ ñu teg suñu kaw ñoo sant ni ñu bu ngeen demee étudiants ya ngeen def ba ñu nekk ci maanaam anam woo xamante ni bii mucc ayib ayib la anam woo xamante ni bii dinañ mën a jàng bu baax a baax a baax réussir pour mën a servir nation bi waaw loolu la ñu sant biñ ñëwee nag ci loolu lañ jéem a dox moo tax ñu daal jóg lépp loo xamante ni bii bi nga xamante ni bii lii nga xamante ni mooy mbas mi fi am bi mu amee étudiants yi dem ñu profité ci lépp loo xamante ni mën nañ koo def ñu def ko lépp loo xamante ni bii course bi amoon na ko ci moyen ñu jël ko dugal ko ci loolu ñuy sant li nga xamante ni bii mënuñu ko ñu dem seeti comme ñu moo wax ay partenariat pour ñu jàppale ñi ci pour que étudiants yi bu ñu dellusee fii gis ni béréb bi ñu nekkoon bu dee peinture bi nga xamante ne bii peinture ñëpp xam ni désinfectant la. bu dee néeg yi bu dee environnement bi maanaam bu dee étanchéité ci kii ak lépp loo xamante ni bi rek mën nañ koo def ba nga xamante ni étudiant yi bu ñëwee dina mën a jàng bu baax réussir ñibbi ñu def ko restaurant yi ñu dem ci ah ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bii euh, maanaam suñuy moyen egg na ca ñu def ko ngir étudiant Thiessois euh, lu am solo la nag sax parce que euh, ñun wax dëgg yàlla Dakar la ñu bëgg fii at mi jeex <laughs> ngeen baal ma parce que man xam naa ni bu ma jógee faj na mën naa am Dakar laay ñibbiwaat mais dama bëgg balaa at may jeex ñu dab Dakar bu déwénee bu ñuy daw du ñuy daw contre sunu bopp la ñuy la ñuy compétiral waaye dootuñu am kenn koo xamante ni dañuy rawanteeg moom loolu mooy suñu objectif doon la première université sur le plan de la gestion sociale sur le plan de vraiment la paix sociale avec les étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk fii ñi ñu ciy jàppale di ñu ci jàppale parce que ñoom aussi c'est des étudiants yoo xamante ni c'est l'occasion ma gërëm leen dañuy indi seen i contribution directeur nii la def nii la def directeur dootuñu garaw moom fee lañ koy teg dañuy dialogue ba nga xamante ni bii sës nañu soog a dugg ci yooyu ba ma fi ñëwee léegi dégg nga li fi daan am ay sans amatu fi étudiants yaa ngi daawuñu fay seen loyer ñu ngi fay seen loyer étudiants yaa ngi jàpp bu baax a baax a baax ci liggéey togg yi man nañ ñi parce que tout chose est perfectible maanaam loo xamante ne bi am na rek war nañ koo mën a yokk waxtaan nañoo ñoom nag ni leen contrat lañ am ak ñoom nañu góor góorlu yokk seen loxo loolu sax dem na ba nga xamante ne bi mooy ma embrayé ci li nga xamante ne bi mooy euh, maanaam ay fast food yoo xamante ni dañ koo dugal ci biir campus yi yoo xamante ne bi mooy restauration rapide nga xamante ni étudiant bu am cours wala bu togg ga fële xam naa <laughs> ndaw nga sant moo tax koy wax affaire yi affaire togg bon nga mën a dem jënd sa sandwich wala jënd sa jus locaux wala yooyu donc yooyu itam dugal nañ ko ci biir euh, mbir mi. actuellement gouvernement bi def na effort yu mag a mag a mag a mag xam naa lii nga wax sax bu sama domaine mais bu ma àndoon nga visiter chapiteaux yi yi nga xamante ni def nañ ko foofa climatiser ko pavé alentour bi def loolu lépp ci en un laps de temps nga xamante ni bii loolu lépp la. professeur Cheikh Amarane def na ko ci instruction gouvernement bi nga xam ni pédagogie bi tamit bu ëllëgee dinaa ko tàggu mbaa ma tàggu recteur ñu ànd ma woon la li nga xamante ni def nañ ko sur le plan pédagogique sur le plan social rek laa woon mais sur le plan pédagogique aussi boo liggéey dinaa tàggoo ñu dem ma woon la lool ni la du sama domaine waaye gis nga ni ay jéego def nañ ko xam nga université Thiès vraiment yow yaa ko gis euh, vraiment lu bari euh, bi ñu koy créer ni ñu ko créer woon la rek mais gouvernement bi mi ngi def jéego yu mag a mag a mag parce que pandémie bi li muy am lépp dañ ñoo sant ni ñi bu leen croiser les bras mais imaginer tey jii bu fekkonte ne bi dañoo toogoon suñuy kër ñu ne ñu premier septembre dinañ ubbi gis nga lii nga fi gis lépp kenn mënu ko def ci ñaari weer ñetti weer ah donc looloo tax bi ñuy santee ñuy liggéey gouvernement bi mi ngi doon sant ñuy liggéey croiser wu ñu les bras donc loolu moo jur lii. ndax budget bi dafa wala. xam nga budget moom mbir moom euh, ay pexe. Mm-hmm. àddina ay pexe ko yor. ay pexe nag gouvernement bi jàppale nañu comme ni mu jàppale ñëpp mais aussi dañoo am ay pexe pexe yooyu mooy loolu nga xamante ni bii tuddee ñuy tuddee PPP partenariat public privé boo demee université Dakar bi nga xamante ni bii donc am naa fa ay at yu bari euh, liñ naan projet am sa réalité COUD projet la boo xamante ni bu paree dina génne lu mat dix-huit mille lits ci benn yoon te alors cinq 5000 yi moo fa nekkoon te loolu partenariat public privé bi moo ko indi donc léegi euh, li état bi yor da koy joxe mais aussi di nga mën a dem ci ñi nga xamante ni bi am nañu alal euh, nga xamante ni bi ñoom mën nañ koo dugal ci développement bi mën a néggandiku tuuti lu am dox leen loolu tamit euh, lu am solo loo xamante ni ci doxin wu bees bi am moo tax léegi ay pexe boo ko amee man nga am lu baree bari ba mën ngaa dem fa sori. coronavirus bi day feebar boo xamante ni bii euh, ni ñu ko wax ci benn fable naan un mal qui répand la terreur bon foofu sax danaan mal que le ciel a inventé pour punir les crimes de la terre mais je ne sais pas <laughs> tel n'est pas le cas ici mais c'est un mal daal qui répand la terreur euh, partout et la désolation la pauvreté donc léegi loolu bi mu amee ñun day jëg nañu taxaw ànd ak département médical bi. division médicale bi ànd ak personnel euh, parti yi ànd ak euh, syndicat yi ànd ak étudiants yi pour jéem a xool nan la ñuy kare maanaam musiba moomu euh, li lépp loo xamante ni bi moom la ñuy wax mesure barrière loo xamante ni bi lépp day day day day kar mbir mi pour mu bañ a law vraiment te nga xamante ni mën nañ ko def nañ ko fi ne nii ñi nga xaar étudiants yi li ñu am ci masque mat na ñaar fukki junniy masque ak benn junniy masque yoo xamante bi ñu ci sunu magasin ñu denc ay thermoflash liñ ci am bañ ci mujjee commandé demoon nañu ba ci juróo ba ci ba ci ba ci juróom fukk yoo xamante ni bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni am nañ am nañ saabu am nañu euh, eau de Javel am nañu ay alcogel yu bari am nañu ay plateau technique autonome yoo xamante ni maanaam pour raxas ay loxo am nañu ab comité boo xamante ni bi aussi day wër di sensibiliser étudiants yi loolu lépp ñi ngi fi te loolu comité boobu euh, docteur Ndoye mi nekk sama wet moo ko jiite comité boobu ñi ngi liggéey étudiants yi nekk na ci travailleurs yi nekk na ci ñëpp nekk na ci lépp loo xamante ni bii ñun wax nañ ko te pharmacie yi tamit defar nañ ko ba mu am ay garab lenn daal moo ci des te ñu ngi ci maanaam maaraytaal yi wut foo xamante ni bii maanaam chambre d'isolement chambre d'isolement te ñu ngi doon wër ay kër yoo xamante ni xam nga gaa ñi léegi lañ jox la kër ah bu ñu xamee ni loolu nga koy doyee ñu nanguwaat ko waaw parce que xam nga moom quartier boo nii dama fay indi ñu am korona gaa yi duñ nangu mu nga ñëw foofu mais loolu ndooyee ngi nii jox na ñuy kër ba tey mais loolu moo ci des mais à part wax dëgg yàlla li nga xamante ni ñun du ñuy docteur waaye lépp loo xamante ni wax nañ ko nii bu ñu ko defee bu étudiants yi ñëwee mën na leen musal ci corona bi def nañ ko teg nañ ko lenn doo nga ñu desee fi mu ne nii bu travaux yi jeexee lenn lenn mooy désinfecté néeg yi te dañ doon xaar ba out deux semaines avant ñu jaar fi désinfecté lépp ndox mi moom ndox mi moom yàlla yàlla moo ñu dimbali parce que bi ñuy koy def sax maanaam loolu sax taxul woon dañoo ñëwoon am piscine bu nekk fii boo xamante ne bi doxul woon ñu xam ni pour ñu feesal piscine bi dina doy war ñu dem seet nit ñi ko dañoo bëgg nga defal ñu sondeel ñu fii ba xam ndox mën na fee génn bi ñu sondeelee ni mën nañoo bënnal forage ñun bënn nañ ab forage mi ngi fii am na loo xamante ni bi sax ab teen maanaam puits amélioré amoon na fii tamit ci ginnaaw mooy ñaar yëpp a ngi fii ndox mi sax defe naa gaa ñi nekk fii sax nee nañ ma ah léeg-léeg euh, maanaam cité Balabé beeg ñeneen nañ ñëw fii waaw fii la ñuy roote si fii la ñuy roote si donc bu forage boobu ñu bënn moo leen dimbali donc fii la ñuy roote si université moo leen jàppale donc loolu defe naa lu am solo la loo xamante ni bii collaboration yi avec en plus gis nga fële li fee cité fi cité Balabé defe naa visité nañ ko fi ñu def ko ko ci foofa gis nga ko yow daa nga fa jaar ay raxas dañ fa daan raxas ay oto dañ fa daan sotti ay grava mécanicien yaa fa nekkoon ak yeneen ak yeneen xeex nañoo ak ñoom préfet jàppale ñu sous jàpp jàppale ñu gouverneur jàppale ñu ba ñoom ñëpp ñu dem ba gis nga foofa nañ ko defaree ñi ñi ñiy raxas oto yi gis nga leen foofa à quelques mètres ca kaw donc loolu en plus malfrats yi aussi dañ fa daan euh, làqatu loolu aussi defar nañ ko ba nga xamante ni bi di suñ digganteeg fi cité Balabé dina doon ab fi ñëwaatee di ngeen fekk nag enseignes lumineuses nekk ca kaw nga xamante ni boo nekkee cité Balabé Medina Fall foo nekk di nga dégg gis ni kurus te ma nga ne euh, loolu daal la nga xamante ni def nañ ko fi nag te di ko xeet euh, te di ñaan yàlla yàlla jàppale ñu. hôtel du Rail lépp yemoon na pour que étudiants yi war a mën a ñëw jàng si si anam bu rafet parce que liggéey bi ñu fi doon def pour changer restaurant bi ni mu meloon euh, hébergement bi nga xam ni chambre yi. bon boo xoolee plomberie bi boo xoolee électricité bi lépp dafa amoon ay problème léegi loolu lépp réglé nañ ko ah parce que directeur bi mu ñëwee dafa ñëw rek nii lii il faut que ñu réglé ko parce que mun a xaar parce que li ko ko may nag mooy dafa yàgg si centre des œuvres il a fait vingt ans centre des œuvres bi mu ñëwee xam na fi mu jëm déjà un directeur boo xam bi mu ñëw làmbatuwul xam na fi mu jëm dafa ñëw rek attaquer problème yi. waaw vraiment loolu tamit il faut que ñu souligner ko euh, dama si lancer un appel tamit pour wax ko président pour que muy defal les direct euh, direction centre des œuvres yi courses yi euh, bon ñu leen ñuy defal promotion interne parce que kii dafa xam fa kudd la nekkoon xam na milieu bi moo tax bi mu ñëwee fii amuñu benn problème boo xoolee quatre campus yi nga xam ne moo nekk si université Thiès yëpp foofu dem nii la y a des chantiers yoo xam ne pare na te tey jii le premier septembre tey jii bu noonu ouverture dina am dina mën a accueillir les étudiants étudiants yooyu dañuy ñëw fii def ay visites ils sont vraiment contents waaw ñoom ñëpp a contents ñoom ñëpp dañuy ñëw fii di photo di ko def ay statut vraiment liggéey bi da leen a yéem.